ci kii di Papis Demba Cissé international sénégalais bi attaquant la it ci euh, gaynde yi euh, di multiplier kon action sociale yi muy def rawatina euh, ca gox ba mu juddoo grande mosquée dëkk ba mën nañ jàpp ni moom Papis Demba Cissé defaraat na ko am na it benn ambulance boo xam ne jébbal na ko fa askan waa Cheikh Sadibou bu Ibou Cissé ña nga fa woon. Papis Demba Cissé football katu équipe nationale bu Sénégal dugal na loxoom si defaraat jumaa bu mag bu Sédhiou melokaan bi jéggi woon na dayoo at yi ñu weesu ba imaam ak askan bi rafet lu jëf ji samedi bi passé la ngeen commencé liggéey bi samedi dimanche altine altalaata ngeen jox ñu caabi gis ngeen jumaa ji bit bi li rafete biir bi noonu la karo bi karo nañu yëpp def ci moquette bu bees ku tabaxal yàlla ci biir àdduna fii mosquée wala jumaa la yàlla tabaxal arjana ci arjana ba mu ci jógee moom Papis Demba Cissé may na loppitaal bu Sédhiou ambulance bi muy ndimbal bu mag région bi yëpp kontaan parce que ñun suñu jafe-jafe bi ci hôpital bi maanaam euh, ambulance bi la euh, benn ambulance lañ am fii ci hôpital régional de Sédhiou ambulance boobu sax ambulance bu bu sonn la bu fatigué la donc tey ah, Pape Demba Cissé bu ñu indale n'est-ce pas ambulance bu bees tey ambulance médicalisée da nga xam ne mun nañ ko utiliser n'importe quand et n'importe où loolu nekk na loo xam ne mbégte bu rëy la pour euh, population de de la région de Sédhiou. ambulance bi également qualité bi dafa baax parce que xam na dafa am matériel yoo xamante su fekkoon euh, évacuation nu la neex defee ko kon dañuy jël fii transport commun mais dafa am évacuation yoo xamante ni dañu war a assister malade bi si biir te comme ambulance bi yàlla def na fi mu def si ay jumtukaay yoo xamante ni mën na noo assister malade bi su évacuation ñàkk euh, mënta ñàkk kon suñu xel day gën a dal encore. loolu yëpp nag Papis Demba mu ngi ko jàppee mottali yéene bu yàgg. boo géntee dara nga ñëw nga ñëw dix ans après. voilà vingt ans après nga koy réaliser loolu loolu sant la donc man damay sant yàlla yàlla mi nga xam te ne moom ma jox doole bi ak bi bi eh, jox ma mën-mën bi may def lii man de juste dama koy delloo njukkal yàlla daf ma ko dënk du man maa ko moom man li ma joxe nii dama ko war a joxe bu ma ko teewoon yàgg naa suma dund du yàgg damay faatu donc yëf la boo xamante dafa war a génn ci man. te li fi ma ko génnee mooy jàkk bi ak hôpital bi donc loolu sant yàlla la quoi. man du ma wax du ma wax ñaata la ma coûté parce que man bugg ma woon sax ñu koy wone télé. dellu si Papis si sa ren si dëkkam bii di Sédhiou amal na njëriñ ñi askanoo ci pakaaw ba ñu ñaanal ko.